donc di ñaan yàlla aussi tamit mu continuer noonu rek ba jàmm am lépp lu ñu bëgg ci làmb rek yàlla suñu borom defal ñu ko. et ma gis benn évolution ma gis deux adversaires yoo xamante ne nii dañuy ànd woy Aziz indi loolu nga woy yéen ñaar daje ngeen ci studio bi wala. noo kii mënu woy de. <laughs> ah non kii wax na fi takk ci rëpp nga ne <laughs> mënu woy. foofu la yem eh, Tafa mais kii lan la bëgg affaire bi la. <laughs> non wax na dëgg moom mën na dóor ay baat su nice mais. man moom xamuloo loolu comme que première fois laa ko def moom jot na fi génn ay single xaw ma waaw man moom ginnaaw première fois maa ngi def noonu moom. Ah. naa est quoi mais nag ama li nga wax sànq euh, affaire u supporters yi moom nañu cool calme mais terrain ba moom bëre ba waa ji jàppay om moom vraiment. Euh, supporters yi moom na tàng na tàng jër jër jër jër bu dara sedd. supporters yi xam wax dëgg yàlla mooy li ma la wax rek. la ñuy yem ci kaw. ca kaw a kaw man ak yow ci digg géew. waaw dañ nañ nañ tesewaat xam nga bu baax may kan. dinaa la bëreloo ba nga. jàpp mais ngeen ma découvrir loolu leen leen te est xam que xam ngeen man maa yore làmb boobu. <laughs> macha allah. ngañ Metzo man la jox làmb boobu. Mhm. ma denc ko. ok fàtte ni maa ko yore. ok ma koy wër ba Metzo woo ma. ni ma jox ma sama kaset ma ne ko ban cassette mu ne dama am cassette boo xamante ne nii. mën naa cee am million léegi. dalay woon naa la bu ko teg de. ah. dalay woon naa la bu ko teg non non daf ma xaw a réer. maa ngi koy ah. seet. Eh, mais ko sans dama ah? teg léegi dama teg ko léegi. non non dinaa ko bu ma koy gis di ko teg. bu lee mu leer leen. noo kaset bi moom mi ci samay biir archive dinaa ko seet mais du ma ko teg léegi. non da nga bàyyi ba combat. tegal heure bu la neex bi da koy teg parce que nee na dafa maa dàq ji may raam comprendre <laughs> waaw te raam moom amul ci làmb. da uh-huh. ngay nangu ne daan naa la ma war la dolli. bala bala non man dama doon yàlla yow non dama doon man loolu dootuma ci wax. waaw dernière fois bu ma lay plaqué man génn naa langue yi. langue <laughs> dafa trois plus de quatre minutes del si ma. yaa ngi dégg. léegi léegi ñi ma eh, ñi ma àndal ñoo ma wax ñëwal bëre ma ñëw bëre waat ak yow. dinaa ko gis. maa ngi ñoo bëri ñaari quinze 15 yàlla rek man de yàlla rek moo tax may wax. non loolu bu may wax. du ci man. yàlla bu ma yàlla may ci dara ci làmb dañoo bëri ñaari 15 15. ku nekk di wax ak sa morom ba mu nar a yàq làmb ji fekk ma am lu ma ko wax mu naqari ko ma ne ko baal ma kaay ñu bëre mu ñëw ma daan la pied bi nga xamante moom laay di muy droite ma la bu daanu ma la ma la ci lu la waxal tare naa ci quoi léegi ñu wali balla ko sek artiste sunu di ndaanaan di xale boo xamante am trop ci ni nga xamante ni noonu la liggéey mais bu leen fàtte balaa waali di ñëw Babacar SMS yi yokku na SMS yi yokku na Tafatine 4763 SMS Eumeu Sène 2769 Modou mais amul santan ah, ngeen baal ma Tafa la Eumeu la Modou la Balla la Eumeu deux mille sept cent soixante neuf Modou mille six cent quatre vingt neuf Balla deux mille neuf cent bu nu xoolee Tapha Tine moo jiitoogum Balla Gaye moo ci topp Eumeu seen moo ci topp Modou Lo moo ci topp moo jël quatrième léegi suma réalisateur dugalal ma Waly Ballago Seck ñu dellu siwaat mais bu leen fàtte vingt six cent ñàkkee nga dem bàyyi ma waxoon nañu ma su ma amatul nga dem wàcc ma ndoxaanu léegi néegum lu waas na daal daal ko bàyyoo génn waxoon nañu ma dooma sëyal di nga dem bàyyi ma newoon nañu ma su ma amatul nga dem bàyyi ma doxaanu léegi néegam lu waas na daala daala sayu ginnaaw newoon nañu ma dooma sëyal xaalis rek nga gëm jortoon naa ni dooma sëyal di nga dem bàyyi ma doxaanu léegi néegum lu waas na daala daala sayu ginnaaw my boy Kale, always my boy. mam mari sow mooy sa yaay ko sëriñ moor laay boo tëddee nelaw sama mag yi sama xarit nga mali gàkku boo tëddee sekk mooy sa maam sëy na booy sa yaay mama rey sa baay soo tëddee nelaw umu njaay badara jaay wala fay si ray sa yaay dëkk naa leen aji borom bari ene waro sunu yaay yaay jene ma fal yaay ba sëy yaay nango mi di jooy jamono yi léegi sa yaay soo defee man boo merci beaucoup. beaucoup. merci beaucoup. merci beaucoup wax plateau bi oh, avant tout may papa yi ma fi fekk ak frère yi ma fi fekk trop ci invitation bi. parce que nañ fi buñ la ci ci invitation yi la. may télé bi Sénégal plateau bi na ah, def et fan club bi jàpp ci SMS surtout. donc que le maire gagne ñi fi nek ñep ku ci nek sa nday liggéey na dëgg la waaw waye nak faaw mom perdant waay waay yalla yalla def jàmm jerejeuf merci wali di xalé bu am jom top ci tanki wajurum li ñuy wax doomi jangir beure waxu nu rek ah Balla Gaye mu dem beure ji de mom rek de non momit ci doomi mbeur jangil beure la ndax te bàyyam mbeur la ci walu wi nga xamni mom la nek mu di walu way di coon ballaago Nous fatali, ñu encore téléspectateurs actuellement Tafatin Monek moo ci kaw avec 4763 SMS un Mochitop avec non Balagay Mochitop. Balagay Mochitop avec 2 945. ci avec 2945 un Sène ci avec 2769 vient ensuite Modou avec 2689 yen fans club modlo yi xawma fan ngeen ne yen fans club euma sen yi affaire bi évoluer wul fans club balaga yi tafatine mo len raw lolou na ngeen ko souralé kon 2600 pour tafa 2600 pour euma 2600 pour modou 2600 pour balla question bi ma delou wat ci bir mbeuri modou modou dafa am lo xamanteni remarque la ci sa adversaire ñi mu bëreel ñu ci bëri da nga bëreek ñoom match ni te dalee na daan dafa daan Gris Bordeaux dafa daan dafa daan ki nga xamante moo di Lac de Guerre 2 da nga am yow ak Gris Bordeaux arbitre leen départagé yow ak Lac Guerre da ngeen a match nil ku mel noonu daan ko dina la yomb. waaw parce que ñooñu bëri yëpp daan leen. ñu ba ñuy bëreek moom. ni ñu bëree ak moom ba ñuy bëreek man bëreewuñ kook man. waaw mm-hmm. ah, puisque ba ñuy bërik man dañu ñëw tey seen bopp bu ñëwoon def comme lu ñu def ci kii kon affaire yi du yegg foofu. Mm-hmm. waaw mais loolu daal. du affaire bi ñoom woon mais man ak moom la. yow ak moom la. waaw. ëmm. ñi mu fi mu amee jafe-jafe yëpp danga daa yomb ci yow bu yombul it da ngaa fanaane ji ak bànneex parce que xam naa ni contre Gris yombul woon xam naa ni contre Lac de xëy na moo xawoon a tane. mais te moom mënu leen a daan kon daan ko dina la yomb dina ko yomb mu daan la. Ah, ñaanu ma ko yàlla moom maa ngi ñaan yàlla daan jëli wu rëy. incha allah bi si kàttanu yàlla. waaw loolu laay boo bëree ak koo xamante ne ni ñi mu bëreel te mu daj yow yaa leen daan nu muy def ci yow. ah non moom du ma ko du ma sóor foofu quoi. yow doo xoolee foofu. waaw man maa ngi xool waaw maa xool suma diggante ak moom quoi di si ñaan yàlla. mais yaa ngi koy jàng booy bi. non jànguma ko sax. maa ah lu tax jàngoo ko jàng ko. maa rek di nga koy xa di nga koy calculer ah. waaw làmb la mais. calculer moom parce que bëri bari waaw. waaw noonu la làmb moom il faut nga bëri ruq rek. waaw. Alaaji Papa Diagne Alaaji Papa yaa ngi xool <laughs> mbër yi ku ci nekk am na foo ma ne tey jii gis nga leen fi def Alaaji li ma laaj li ma laaj Modou Lo est-ce que bokk na ci làmb. mën na doon làmb euh, Bécaye dama ne la Modou Lo bul xool poids am wala nga xool taayam wala nga xool année bi mu ñëwee ci làmb ji que fi mu jaar ba egsi ci ñii ñëw di leen bousculer kon il a beaucoup travaillé ci fulla ak fayda ak am personnalité boo xam ne bu duggee ci làmb ji bu la xoolee di nga xam ne même boo ko ëppee pour nga am ci moom dara il faut nga teg sa bakken te dafa am benn problème bu am su ñoom ñett ñi bëri nañ te ki bëriwul ak ñoom. donc cercle bi y a waaw Qui mo pour bousculer pour bousculer. te bousculade bi mi nga bëgg a jaar ci roi des arènes. li ngay def émission yépp ñom ñaar ñi nga wax ma ngi leen di déglu. Sène ak ci. ak Modou. ak Modou ci ay ay def mais ñaar ñi nga défolé c'est que laisse entendre que combat ñom day. gaaw gis gis ñaar combat combat éclair la war mais combat bleu moy combat réflexion. combat bi da nga bëgg wax ne day gaaw. non bien sûr. ah bon ndax kii nee na ko yow ñaari affaire nga am ci làmb. waay mooy euh, takk. ak beneen plaque plaque. déedéet plaqué ak takk. waaw loolu la ko takk kii ni ko. Uh-huh. du ñu egg foofu dama lay dóor. Uh-huh. sama loxo dafa diis te maa la ëpp doole. Uh-huh. te dama lay duma. Euh, Balla ni ko. yow mënoo bëri. Mm-hmm. yaa gën a nul ci làmb ji mënu ko danga nga soxor <laughs> bale nu ko soxor man soxoruma kon xam nga ñu ngi wax uh-huh. ñoom dialogue la def ñi la ñaar nag seen dialogue dialogue de suur la waaw ndax kii daa yeewu <laughs> bàyyi leen ci moom de xale bi le uh-huh. <laughs> moom kay ba bàyyee ci xel ci moom xel bàyyi ci moom xel te kii bëreeg moom am na intelligence boo xam ne expérience non kii tamit ndaanaan la mm-hmm. kii xam na ni mi ngi soog a am combat uh-huh. ndax li tax mu xam na ni mi ngi soog a am combat ki muy bëreel

tàggale waaw mais daan na ko Bécaye waaw mais arbitre leen waaw mais non non non Bécaye loolu règlement moom la daan waaw parce que boo ko ko yombalee noonu bëgguma nga yombalal ko ko noonu billaay yombalu ma ko ko waaw kay ndax dama xam ne ni mu def ba am euh, résultat ba yegg si foofu ki mu seqal bés bi waroon na fexe ba am résultat bi mu am moom ni mu négocier am résultat pourquoi Gris Bordeaux négocier wu ko pour am résultat dëgg la mais c'est raisonnable

daan Balla Gaye bi nga xam ne mooy champion làmb ji. Mhm. waaye nag Balla dafa daan Modou Lo. waaw ci bëre bu gaaw ci bëre bu gaaw.